lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu TV xibaar yi wér te wóor. Euh, jamono ji parfois di nga gis ay kër yoo xamante ni maanaam day yëngu maanaam ci wàllu sëy boroom kër ak soxna si ñu am ay jafe-jafe est-ce que yu mel noonu di nga ciy yëngu. waa dañoo toll si jamono boobu nag fi mu lépp lu waay di jàng da a jàng loolu. Hmm. duñ cee jigéen ñi nangu yàlla moo jeeg digal mel nañ takk ba ñeent. soo takkee ba ñeent te soo takkee benn ngay da ngay takkaat man dugguma am wujj wala boog suñu ñëw mooy dem sa diine nee na la soo mënta téye sa bopp te kenn kooku mënu laa mën a yem ci kooku kese na nga takk kenn indi mën a mottali sa jàmm yàlla mm-hmm. parce que loolu kenn defee ko si mosu bopp dina la ci kaw soo ko mënee ci kaw soo ko mënee waxuñu nga dem kolo kolo dem takk jabar suba balaa ngay taal nga dugg fa nekk waxuñu loolu de ci kaw nga mën ko da nga mën a yemale parce que yomal fi am soxna dina lakk jëkkëram mais jëkkër ëllëg dina lakk soxna mais loolu prévoir nañ leen ñoom parce que ñooñu si ñëwee ñun am na yàlla mën a dogal du ma téye nit jox diw téye nit jox diw fexeel ba juboo mën a am seen diggante